ma leen di nettali gént goo xam ne tey mosuma ko nettali te bañ ma dem kenn du xam suba nga daaw. ma ko nettali. bàjjen dama mos a jógee Qahira ñëw mu ne ma sëriñ bi tey ma nettali li gént gu doy waar. man dama géntoon gis dëkk boo xam ne yépp ay étage la ñu ne ma doomi asu asu saar ji moom dëkk fii mu xëy ñëw ci sama yaay ne ko ndax yaa ngi gis póot mu ne ko weer wi gisuma póot mu ne koy jur doom joo xam ne àddina bi yëpp dañ ko xam wallahi te assuma laa koy nettali waaye ma ci dara bàyyi ma nekk sama biiru yaay galanu bàyyi oo sëñ di yaxyaa lii ne ko ñaanalal Mouhamad ay star mu daal li ñaan jox ko suma yaay na ko na ko fanaanoo ci ron lalam ba bërset mu san sa ñu sangu ko ci sangu ko ko doom ji dana juddu te dana màgg cinquante trois quatre-vingt-quinze booba àddina ma dem ziyaara ji ko bi ma toogee di waxtaan ak moom li ma njëkk laaj mooy ñaata at nga am ma ne ko maa ngi ci juróom fukki at ak juróom ren ma ne yow day sa baay defoon nag xar baax ci yow ndax man mii la baaxee woon ma defal la benn ñaan boo xam ne ba ma ko defee bi ko saay naanee da nga juddu am nga ñaata at ma ne ko juróom fukki at mu ne dana yokku loolu la sa loolu la waxoon de ñun nag li mu mën a am mooy lépp loo xam ne bàyyi amu ko bëgguma lépp lu ma bàyyi jox rek nangu naa ko muy taalibe boo xam ne dafa bëgg bàyyi yàlla ma raw sax ci bugg bàyyi muy xarit bu bëgg bàyyi yàlla ma raw ci bëgg bàyyi ndax bëgg bàyyi mooy teraanga kon tey ci bés bi nga xam ne bésu jamaal la mm-hmm. ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax